une des étapes bo xamante bi Amir Sultan Bamba Fep, Bamba partout Bamba merci moy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mom la tek ndax seigne bi fim ni Amir dafa lancer un appel solennel à tous les experts à tous les savants dans domaine de compétence bu mu meunti doon daf la lancer appel pour nga ñeu contribuer andi sa xam-xam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 asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu mboolem mbokk ñu fi fekk di jéggulu gudde gi te di leen sant te di leen gërëm tey rafetlu bu baaxa baax seen taxawaay ak seen teewaay nuyu boobu nag ñu di ci jiital ki nga xam ne moo di Cheikh Modou Kara muy sunu ndijaay di sunu xarit di nekk itam nit koo xam ne nit ku nu naw la ci ay jëfam ak ci pas-pasam ci Sëriñ Tuuba di ko wax mu jotlil na ko mbooleem njabootu boroom Daaru Muxti gépp di am itam te ñu ci jiital ki nga xam ne moo di sëriñ Cheikh Khady ak mbooleem ay rakkam ak i doomam di am mbégte mu rëy ci fekk gi ñu fekk sunu xaritu bopp di maam Thierno borom daaru moom it ñuy rafetlu bu baax taxawaayam ak pasteefam ci Serigne Touba ndax nit la koo xam ne liggéeyal sëriñ bi rek lañ xam ci moom nit la ko xam ne topp kii di Cheikh Modou Kara mi nga xamante ne bii tey jii mooy sëñ Ousmane ci kaw jamono ñu ànd ànd bu rafet ñu di leen ñaanal seen ànd boobu yàgg te lépp loo xam ne liggéey nañ ko liggéey nañ ko boroom daaru sëriñ bi nangu ko di am mbégte itam <clears throat> ci mi agsi fekk sunu xarit di professeur Djibi Diakhaté di def waxtaan foog naa ne moom bu fi nekkee teewaayam rek doy na sëkk ndax lépp loo xam ne gis ngeen ñu koy def ci màggal gi ci biir comité scientifique bi membre bu mag la ci doon am ci taxawaay bu rafet am ci pas-pas kon su ma dikkee fii fekkaat ko fi loolu aussi mbégte la ci ñuul kon professeur ñu ngi lay nuyu yaa ak borom xam-xam yi ngeen dendal foofu te jotuma leen a gis

wante ba tey rek mel na ne li nga xam ne ñu ngi koy làmbu dajaguñ ko kon baax na ñu jàngat sëriñ bi am njàngaleem aw nekkinam ak li mu fi bàyyil lool yi naka la war a mën a sauver dimbalanu ba li nga xam ne ñu ngi koy seet ñu gis ko ndax wàllu développement

day am ci wàllu économique ci wàllu industrie ci wàllu santé ci wàllu social ak ci fànn yu bari loolu nag mel ne tubaab yi dañoo dem ba ci yàgg ñu réer ci ndax la leen réeral bañ koy def dañoo fàtte woon doomu aadama ñu dem ba ci biir ñu defaat ay gëstu génnewaat yeneen i xalaat dal nekkat léegi bu ñuy xalaat wàllu développement nañ ci gën a dugal doomu aadama ñu génne li ñuy wax IDH indice développement humain nga xam ne kon ñu xayma rek jéego yi nga seq ci wàllu économie wante dañuy xayma loolu ban répercussion la am ci dunduk nit ki ñu dugal yeneen

créé waat ci seeni xalaat li nga xam ne mooy les OMD dal ne ci fukki at juróom ji di ñëw bëgg nañ ak ñakk wàññiku de wàcc ci àdduna kon reconnaître nañ implicitement ne ñàkk gi bari na nit ñi kom mi mi ngi yokk wante nit ñi sonn di ñàkk mi ngi mi ngi gën a bari ndax

xam nañ ne objectif yi duñ ko atteindre kon ba léegi am na loo xam ne manqué na leen te loolu leen manqué nag doomu aadama la li leen manqué xañ na diine la te monte am ñu bokk ci ñoom ñoo xamante ne bii ci seeni xalaat dugaloon nañ wàllu diine ci influence bi nga xam ne am na ko ci am koom ni muy doxee loolu ko ci gën a siiw di di Max Weber mu xamle woon ne influence calvinisme ak valeur yi nga xamante ne bii nekk na ci ak gëm-gëm yi nga xamante ne bii nekk na ci moo tax ba yenn société protestante yi gën a développé yeneen société yi loolu valeur yooyu mu tegoon ko ci ñaari mbir gis ne ñoom dañuy nit ñoo xam ne nit ñu ñime tumuranke lañu dañuy mener une vie austère te nekk itam ay nit ñoo xam ne nit ñu gëm liberté lañu kon donte dañuy tënku ci diine ay dogme yu bari du leen tënk dañuy jëfandikoo seen xel dañuy jëfandikoo seen rationalité moom lañuy gën a jëfandikoo ci seen gëm-gëm nekk itam nit ñoo xam ne nit ñu ragal sawar lañu ba ñu gëm ne liggéey bi ngay liggéey ci àdduna ak réussir bi nga xam ne di nga ko am ci àdduna mën naa remplacer sa sawara kon ñett yooyu boo ko boolee nit koo xamante ne bii nangu naa liggéey nekk nit koo xamante ne bii ñeme na ak tumuranki kon dana yaxanal nekk nit koo xamante ne bii li nga xam ne moo ko tënk ci yenn gëm-gëm yi bariwut foog naa ne nit ku mel noonu bu sàkku am koom sunu boroom mën na ko ko jox ba tax loolu mel ne moo expliqué woon seen avancement ci genn fànn gi wante loolu aussi ngeen gis ne ba tey rek am na loo xam ne moo des ndax donte am influence diine ci biir euh, ni mu ko indee moom ci boppam xam la ne ñu ay pas-pas bi demewul noonu la nga xamante ne bii aussi moom la ñu jiital moo liberté loolu nekk lim leen jural mooy nit ñu nangoo liggéey waaye kat ay nit la ñoo xam ne dañuy liggéey di dajale ngir dajale nga xam ne kon comme mi ñu wut day nekk mooy nekk seen objectif c'est une fin c'est pas une finalité dañuy accumuler rek di accumuler di accumuler ba keroog ñuy génn àdduna njaboot ga ñëw continuer loolu ci wetu loolu nag ñun ñu am loo xam ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bi andil na loo xam ne modèle yooyu nga xam ne modèle yi tubaab yi la faiblesse yi nga xam ne moo nekk ci biir sëriñ bi jàngal ñu indil njàngam la moo xamante ne bii dañ koy mën a moytu andil nu loo xam ne moo gën a mat wax ko ba noppi jëfe ko sëriñ bi bi nga xamee ne mu ngi dikk li fekkoon ci suufiyanke yi ñu koy dund mooy li ñuy wax zumdu maanaam ak dëddu àdduna gu mat sëkk goo xamante ne bii sab xol daray àdduna du ci nekk wante sab yëngutu ci wallu àdduna du am solo danga koy bàyyi génn ci Sëriñ Tuuba moom dikk daldi gën a dëgëral dëddu àdduna googu képp kuy dëddu àdduna Sëriñ Tuuba gën la ko def wante mu ne dëddu àdduna daqante ak sàkku lew mu ne li nga xam ne mooy li gën ci doomu aadama mooy mu dëddu àdduna wante mu boole ko ak di sàkku lew maanaam di liggéey donte mel na ne ak woroo am na ci ñaar yooyu mu xamal ñu ne bàyyi li nga xamante ne bii mooy liggéey ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllu àdduna ba noppi loolee di la jural ngay xool nit ñi bëtub ñeetaate ak xememteef mu xamul ñu ne loolu nekk loo xam ne jikko ju am solo la mu ne ñu kon li ñu war a def mooy boole ñaar yi wante la am solo mooy xol bi xol bi daray àdduna bu mu ci taq yàllay kese na ca nekk loolu jur lan nit ki day liggéey nit ki day sàkk lew waaye bu dee liggéey bu dee sàkk lew ana lan la koy doyee ana lan moo tax muy liggéey defatu ko rek ngir di dajale am koom defatu ko rek ngir di liggéey defatu ko rek ngir di dajaleel ay ndonom waaye da koy def ngir delloo lépp ci lislaam ngir delloo lépp ci yoonu yàlla nga xam ne kon liggéey bi sàkkulu lew gi développement bi nekkatut une fin mais day nekk un moyen pour servir la communauté mun nañu li nga xamante ne bii moom nga am dee ci jariñ bindeef yi ngir rekk jëmmi sunu borom bul di denc sam koom ndax ragal ñàkk ndax li nga am sunu boroom moo la ko jox loolu jur ci yoonu murit li nga xam ne mooy tey jii bokk ci li ci ëpp solo muy li ñuy wooyee xidma nga xam ne yoon wi tey jii loolu moo ko taxawal sëriñ bi nañu li nga xam ne moo di seeni bëgg-bëgg ak li nga xamante ne bii mooy li nga xam ne moom la yoon wi soxla na ngeen ko di sàkkul seen bopp bu leen tàllal seen loxo te fépp foo xam ne fa la seen man-man yem na ngeen fa yem ndax képp ku la mënal sañal la te kat ka lay sañal yàlla na nekk mu war laa sañal ndax ki la jox as bu ngeen bokkut pas-pas

mu ne ñu ndax biir bi nga xam ne la muy jëfandikoo lewut boroom du mën a jaamu yàlla jàmm yàlla gu sell tege ci yoonu siraatal mustaqim da koy jafe day ndekk nit koo xamante ne bii la ci ëpp jëfandikoo ga may jëfandikoo lu lewut da koy jëmee ci ak mooy yàlla da koy jëme ci di nuur ci ay bakkaar te bu ñu bu ñu taxawee foofu kon ñu xam ne liggéey bi sàkkulu lew gi day dal nekk obligation ndax sunu borom ana lan la bëgg ci ñun ana lan moo tax mu sàkkunu daf noo sàkk ngir ñu koy jàmmoñ kon nag lépp loo xamante ne bii day tax ñu sore woowu yoon day dal nekk obligation ci ñun kon liggéey noonu la nekk obligation ci yoonu murit ci ne ko yenn borom xam-xam yi di indee mu nekk troisième pilier yoon wi ndax bu ñu génnee sàkku xam-xam génnee jàmmu yàlla liggéey bi mooy daal taxaw ndax dañ ko mooñaale ak yoon wi loolu nag bi nga xamante ne bii Serigne wax na ko yemu ca da ko jëf jëf ga ana naka la ko defee ndax sëriñ bi kenn ku ne xam na ne lépp loo xam ne nekk na ko ci jamono lu ëpp fanweeri at mi ngi ci loxoy tubaab bi waaye xam ngeen ne sëriñ bi dara ump ko moo tax dafa teel a waajal boppam teel a waajal ay ñoñam ba ko sunu borom xamalee fa nga xam ne fa la jëm dafa daldi jóg yar ak njabootam def leen noo xam ne nii ñoom danañ mën a yar mbooloo mi lim bëgg ci ñoom danañ ko mën a def ba lu mu tabja tabja tabja lu mu ñàkk ñàkk ñàkk jot yoon wa nga xam ne bëggoon na ko wane di ko bind di ko jàngale ñoom danañ ca dox te ca biir ñooñee nag Cheikh Ibra Fati da ca bokk ci ci lay bëgg dikkee ndax temps bi ñu ma joxoon xañ na leemu leemu jeex kon mel ne bu ko Serigne tubaat théorisé dama bëgg rek ñu wax tuuti ci ci maam Thierno moom ana nak la pratiquer lan mooy développement bu ngeen jógee fii Daaru moxti da ngeen di dem ba weesu Daaru Waxaab ba Njaaram Njabal suuf sëpp borom daaru moo ko gor ngeen xool tey amut daanaka kenn ci ñun ko xam ne mën na loolu ngeen delloo seen xel ca waxtu wa nga xam ne moom la ko defoon tàmbale ko ca 1912 ba ca na ko doom ya royee ba àll bi bépp di àllub Cerno ana loolu lan moo taxoon mu koy def muy li nga xamante ne bii ci li ko Sëriñ Tuubaa jare woon la moo di lan sañ ci ay dëkk di fa yar njaboot gi di leen fa jàngal di fa sàkkulu lew maanaam di fa liggéey di fa bay ndax ci jamono yooyu li nga xam ne moo xewoon bay la bépp dëkk boo xam ne sanc nañ ko fi bi nga xam ne mën naa ci gën a wax ndax dama koo xam ndax léppam dama ko fekke mu di daaru waxam yàggut man bi may nekk xale booba dañu daan dem ci ab déeg di rooti bu ñu rootee bu ñu dikkee ciment lañ ciy def dal di koy jël wér ko ci miir bi bàyyi ndox mi ba mu teey ñu di ko naan tey jii boo demee ab forage maga fa booba ay sonde la ñuy taal tey jii boo demee courant maga fa booba jàkk amu fa tey jii boo demee jàkk maga fa toog naa soxna may ci boppam di wax daal ne fii de moo fi dikk fekkuma fi lenn lu dul ay jaan yoo xam ne danoon jóge ci kaw plafond bi di daanu ci ruum bi di def put put noonu la ko waxee nga xam ne dañuy toog ba ci néeg ba ci àgg rek jenn jaan xawi ko ca kaw daan nañ suuf te taxul ñu jóge fa ndax xam nañ leen dafa indi woon tey jii boo fa demee ab centre de santé ma fa te foog naa loolu mooy développement ay école manga fa ay daara ma fa te dëkk yépp yi nga xamante ne bi gor nañ ko sanc nañ ko boo fa dem danga fa fekk loolu kon li nga xamante ne bii moo di moo di liggéeyu sëriñ bi du waxi kese da ko liggéey ba noppi dama jël la jëmi boppam wante ñi nga xam ne ñoom la yaral boppam dox ci séq ci ay jéego yoo xamante ne bi jéego yu doy war la yoo xam ne tey jii bu ñu ko doon xayma ci biir réew mi mën nañ ne li nga xam ne ñoo de moo développé àll bi li nga xam ne moo yor koom-koomu Sénégal ci waru agriculture te li ëpp ci réew mi di bay loolu ci loxo loxoy murid la nekk te noonu lañ ko développé ci njàngalam Serigne Touba la xool ci njàngalam Serigne Touba lañu ñu joggi

développement réew muy le produit intérieur brut nga xam ne dañuy boole lépp loo xamante ne bi réew mi produire na ko ak la muy consommé soo ko am nuñ koy calculer mu ay calcul comme leen réew yoo xamante ne bi réew ya économie yu ci anam yu leer lay dox ay tappale bariwu fa ay forot bariwu fa ci ay environnement yu concurrentiel ñu taxawal fa ay entreprise yu mag di fa réussir ay réussite yoo xamante ne bii te ji dafay nekk fierté bépp sénégalais fierté bépp doomu réew mi te lépp itam ñu teg ko ci njàngaleem Serigne Touba ndax ñànk complexe gi nga xamante ne bii ñàkk nañ ko complexe ak gëm gi nga xam ne gannaaw ñaanuk sëriñ bi gannaaw yarub sëriñ bi jiitu na ci ñoom lépp loo xamante ne bi song nañ ko danañ ko daaneel te loolay waxtu mu nekk ñu ciy wane ay exemple yoo xamante ne bii képp ku xool ku ne danga nga ci teg sa bët kon li nga xam ne mooy li am solo mooy gëm-gëm boobu ak xalaat boobu nga xam ne lépp loo xam ne yoonu murit moo ko am moo ko ko may jumaay Tuubaa jee la muy rëy rëy rëy rëy dërëmu kenn demu ca murit yi ñoo ko tabax ba mu toll ne ba nga xamee ne jamono ji neexagut ñu koy taxawal tubaab bi ana lu waxoon ngir gàllankoor Cheikh Mahamadou Moustapha da ko nekkat mënut ñàkk raay ndax matériaux yi li koy transporter saxaar mënu ci ñàkk suñ mënu saa nekk waa baax na daal ñu daal teg raay bi murid gi daal di koy taxawal ba ñu demee Cheikh Mahamadou Fadal moo daan nekk ndokk mur gi dem di gas carrière yi di ko yanu di indi buñ njëkkee ba ci jumaa njeeti murid yi ñooy yanu carrière bi ak ciment bi ak suuf si di ko joxalante di ko joxalante di ko joxalante ba tabax fa sorol boo xam ne nee la toll te ji muy exemple boo xamante ne bii te ji muy exemple boo xamante ne bii mën naa ne ci Afrique de l'Ouest gépp ambu fi tey boo doon xool ci jumaa yi dàq ci àdduna si lay bokk te loolu an laan moo ko tabax dërëmi murid yi ñaar dërëmi murid yi juróomi murid yi ak seenu ñaq ndax sëñ Modou ba mu koy taxawal dana leen woon de ñii rekk ñoo fi nekk boroomu xam-xam moo fi nekk boroom xel moo fi nekk borom alal mo fi nek borom dole mo fi nek kenn ku ne ñent yi am nga ci ben ñent nag la soxla kenn ku nekk la nga am na nga ko indi kon ñu war a gën a takku war a gën a góorgóorlu xam ne loolu sëñ Modou waxoon pas-pas ba tey jii waru fee jóge kon loolu nañ ko jël jébbalaat ko sëriñ Touba kenn ku nekk li nga xamante ni nga man ak moom nga am nga indil ko sëriñ bi ñu saytul ko yoonam wi nek ay talibé modèle nek ay jullit nek de bons citoyens nek ay exemple man a tabax réew mi def ci suñu loxo ci adam go xamante ne bii anam rafet rafet lay nek mu lo xamné lu am solo la te ma di ci fofu lay daaneel ndax temps bi ma joxone mel na ne ben minute mo ci des euh di lo xamné aussi ki ñu bàyyi légui ci biir mi ngi ciy bay waaram mu di Serigne muy exemple ci ndaw ñi exemple la ci taxawaayam exemple la ci gindi gi muy gindi jeunesse bi exemple la aussi ci pas-pas bi nga xam ne am na ko Serigne Touba ak ni nga xam ne noonu la bëggee Serigne bi ak ni nga xam ne noonu la liggéeyale Serigne Touba ba képp koo xam ne jamononte ak yow ci doomi Serigne Touba yi laq na sa ngërëm ñii fi nekk itam kenn ku ci nekk nga kilifaam ci Serigne Touba laq na sa ngërëm muy dajale di def yu mel di ndaw ñi di dans la société musulmane. kon koku bu ñu dikkee mënuñu ko rendre hommage mënuñu ko encourager. mënuñu ko ñàkk félicité ak mbooleem jabar gi nga xam ne ñoom la àndal te borom daaru jiite leen ak yéen ñëpp yi nga xam ne yéen a koy jàppale ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu